sëriñ Abdul Aziz Baara sëriñ Abdul Aziz Baara mi ngi gane àdduna ci atum 1914 ci dëkk bu sell bi di Touba sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke doomu cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke la ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim waajuram wu jigéen mooy soxna Faati Ale soxna Faati Ale mi doomu sëriñ Ale Lo la sëriñ Ale ak soxna Aminata Lo mi jur cheikh Mouhamadou Moustapha Mbàkke ak cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajuru jigéen sëriñ abdul aziz baara mbàkke am na kenn ku mu bokkal kii di soxna faati aaleloo ñu koy wax soxna mbeen mbàkke bintu soxna faati aaleloo ak cheikh mohamadou lamin baara mbàkke sëriñ abdul aziz baara kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ci mbooleem njabootu cheikh mohamadou lamin baara mbàkke gi bi mu ganee àdduna ci atum 1914 fob nañ jëm mujj wala tur yëgal ko ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim moo wax ni nañ ko tudde abdul aziz bokk na ci juróom sëti sëriñ Touba seexul xaddiim yi mag ci yoon wi sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke bi matee dal lii di alxuraanul karim yit nañ ko maamam ja seexul xaddiim ci njaareem ginnaaw bi nag lañ ko jox nijaayam sëriñ Mataar Alelo ci Usnul Mahab ñu gën koo xam ci tundoo di ci wetu waajuram wa cheikh Mamadul mustafa Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul kon ci ron nijaayam jooju la nekk nag di sëriñ Mataar Alelo di fa jàng lii di alxuraanul karim foofa itim ku ñuy wax fa lii di am njàngam ginnaaw bi nag jógee na foofu ñu yóbbu ko ci dëkk bu ñuy wax xawlu ko sëriñ moo jaar jaara géey moo ko fa wéeloon am njàngam ginnaaw xawlu nag dilsiwaat na ci dëkk bu sell bii di tuubaa rawatina kiñ ko joxoon di cheikh mamadul mustapha mbàkke ci di mu jébbal ko nag sëriñ habibu mbàkke imaam ci tuubaa mu tëralal ko lii di xam-xam moom sëriñ abdul aziz mbàkke baara bi muy jógee ci sëriñ habibu mbàkke imaam moomu cheikh mamadul lamin baara mbàkke gis na kii di sëriñ habibu mbàkke imaam sant ko nag bu baax baax a baax a baax ci yar bi mu def ci sëriñ Abdul Aziz Baara boole ko xam-xam bi mu ci def ginnaaw bi nag la fa bàyyi koo ñëwaat xusnul mahab di tundoo di ci kiñ ko joxoon di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke mi waajuram moom la ko Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke féetale woon te moom la ko joxoon ngir mu yar ko foofu la nekk di tarbiyewu ci loxoy waajuram Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu Xaadim Rasul li ko jëlee tundoo di moom sëriñ Abdul a Mbacke Baara mooy ci atu 1936 bi sëriñ Baara Mbacke génnee lii di ci àdduna la ko cheikh moodu moustapha mbàkke doog a yabalaat nag mu dem topp ci ginnaaw magam ji di sëriñ moodu alxafis mbàkke ngir ñu mën a taxawu njabootu cheikh mamadou lamin baara mbàkke gi waaye budul woon loolu mi ngi ci loxoy cheikh mamadou moustapha mbàkke ci tundoo di sëriñ abdul aziz baara mbàkke ibnu cheikh mamadou lamin baara mbàkke bokk nag ci doomi cheikh mamadou lamin baara mbàkke yi mag ginnaaw magam ja sëriñ moodu alxafis mbàkke moom sëriñ abdul aziz baara mbàkke mi moo ci magaat kon kat benn yitte rek moo am muy topp nag ci ginnaaw magam ji di sëriñ Moodu Alxafis Mbàkke def ko nag Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke boole koog nag yéene koo jàppale ci rakkam yii ñu taxawu leen ba bu ëllëgee kat kenn du ne sëriñ Moodu Mbàkke Alxafis mi ak sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke mi keroog bi fi sëriñ Baara Mbàkke bàyyi ko ñoom ñaar ñoo magoon ci doomi loola itim fu ñu jaar daw ko fu mu jaar dawlee ko magam ji itim te lu dul loolu itim fu mu jaar dawlee ko jëmmam jooju kon kat lii sës rek mooy taxaw ci ginnaaw magam ji nag fas yéenee nekkum jëwriñam ju ràññeeku lool ci ëtt bi di guy mbind sanc na nag li ñu tudde ay dëkk ndax xam na ne loolu bokk na ci lu mën a jàppale kii di magam jii di sëriñ Moodu Alxafis Mbàkke ci toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ñaari at ginnaaw bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke làqoo muy ci atu 1938 sanc na nag dëkkam bim njëkk a sanc ñu koy wax bustaan bustaan gi mi ngi ci wetu poof di juróom benni at ginnaaw bi muy atu 1944 sanc na nag dëkkam dëkkam boobu ñuy wax mbaam jigaan ñeenti at ginnaaw bi encore mu sanc nag dëkk bu ñuy wax jumaada mu tegaat ci lu tolloog fukki at ak ñeent ginnaaw bi sanc nag dëkk bii ñuy wax tuubaa ñaani tuubaa ñaani ci ñi ko xamul mi ci suufu Tambacounda mu nekk fay liggéey di jàppale magam ji sëriñ Moodu Alxafis Mbàkke boole koog lu mu amit yit waajuramam yi nga xam ne ñoom lay xoole Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke taxawu nag lii di ay rakam itim ndax kat bari na ñoo xam ne nii ci rakam yi nga xam ne nii ñoom la kii di cheikh mamadou Lamine baara mbàkke sëriñ abdul aziz baara mbàkke mi moo leen sampal kër moo eggale seenum njàng ba ci xalifa général des mourides bii fi nekk loolu nag tax na mboolem njaboot jëm séqal cheikh mamadou Lamine baara mbàkke tudde nañ ko doom lii di ay turandoo nag sëriñ abdul aziz baara mbàkke bari leen na ko ndax kat neewoon naa la lu ëpp ci njabootuk cheikh mamadou Lamine baara mbàkke gi mook magam ji di sëriñ muudu alxafis mbàkke ñoo leen taxaw ba ndax moom la fii ñu dëkke ci Touba nag di kër Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ñu gën koo xam ci Touba guy mbindiitim moom mooy ki ko natt ci ginnaaw bu ñu nattee dëkk bi wala ci bi ñuy natt lii di dëkk bi kii di sëriñ Abdul Aziz Baara Mbacke ku yaawoon ab gis-gis la te sorile ko macha allah ndax ci lii di biir réew mi lu tollu juróom fukki kër am na ko fi ngir kat xam ne bis dana ñëw lii di murid yi soxla ko lii di dëkk yi fi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bàyyi woon teñ def ko mag moom njabootu Cheikh Mamadou Lamine Baara gi itam kenn ku ne fexe na ba nga am fa lii di kër ñu ràññee ci mbàkke kajoor moo ko lotise lii di tuubaa guy mbind itim moom moo ko lotise mu def nag lu am solo lu jafe lool ci réew mi di Sénégal wala ci àdduna bi muy am pénc borom pénc ma ko moom la wër pénc ma lépp ak njabootam rek dëkk fa loolu moom guy mbind dong lañ ko mën a tegee ba sëriñ Abdul Aziz Baara daana wax ne ñi nga xam ne nii kan ñoo fa séenee moom seen dëkkub maam wala bu ëllëgee kan itam ab liggéeyam la moo ko def xam na ne ëllëg génération bu ndaw la fi bàyyi te kat luñ xas def ba pare duutul neex a dindi ku amoon gis-gis la ndax formation cheikh mamadul moustapha mbàkke la yoroon moo ko yar moo ko tarbiya li nekk ci moom itam cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko ci def ku kiimaane woon la moom sëriñ abdul aziz baara ndax am na bis mu seet si kii du sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nakate ci kaw jiit la toog jiit ja fett na ko te taxul mu wormaal magam ji sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ak cër bu mu ko jox kero ba mu jógee ca jataay ba la yëlëb lii di mbub ma jiit ja wadd muy xamal ñam àndaloon ni toog gim toogoon ci kanamu sëriñ cheikh mbàkke gaynde ma moo tax ñi mu wut a raf moonte menn at dong nag la ko sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma mage waaye muy kilifaam ku ne war na caa roy ba tey ci formation bi cheikh moodu moustapha mbàkke boobu mu yore lii di mbàkke kajoor itam moom kenn ku ne mu wutal la fa lii di kër lii di jumaay mbàkke kajoor ja itam moo ko fa def bi mu toogee xalifab cheikh mamadou lamin baara mbàkke boole koog itam mu mag itam ci njabootuk cheikh mamadou moustapha mbàkke ci daaru xudóos ñaari kër yi moo leen boole jëmmal leen ba lu xew mu fekke ko yabal itam mbooleem guy mbind wala daaru xudóos ñu ñëw teewee fa ba jaxasoo gu metti gii am ginnaaw yàlla moom la ndax baaraak moustapha ñoo bokk aminata lii ak waajur waajuram yooy joxoon na leen cër lool waaye waajuram yooyu itam delloo woon nañ ko lii di cër ba ndax kat sëriñ Abdul Aziz Baara moo leen ko ji te moo leen ko wan kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke miñ ko joxoon mu yar ko ci tundoo di tudde na ko ab taawam di sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara Cheikh Mamadou Fadal Mbacke sëriñ Abdul Aziz Baara defoon na ko waajur ba sax Cheikh Mamadou Fadal Mbacke xamoon na ko ba daana ko liggéey loo defar loo woon na ko lii di ak kër wala daaru cheikh mamadul faadal mbàkke la néeg ya fa nekkoon sëriñ abdul aziz baara mii la sëriñ fàllu woolu woon ne ko defaral ko ko waajuram wii di cheikh mohamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim kërug daaru minam gii laataa sëriñ basiiru di fi dëkk sëriñ abdul aziz baara mbàkke la woolu ne ko làkkal ma ko booba nag lii di ciment yombul waaye sëriñ abdul aziz baara mbàkke moo fi njëkk a def làkkub dóor dóor boobu ngeer boole ko nag tabax fi ñaari néegi ban ba sëriñ bi man fee dëkk kon kërug daaru minam gi di kër cheikh mamadul bachir mbàkke buñ demee ba man fee fanaan liggéey yub sëriñ abdul aziz baara la waajuram wa du cheikh mamadul bachir mbàkke moo ne ko fexeel ba ma man faa dëkk mu miire woon ko ci lii ñu tudde ab làkkub dóor dóor boole ko nag tabax fa ñaari néegi ban jaa jëf sëriñ abdul aziz baara ñaari waajuróomam yiitim di sëriñ tuuba cheikh saliwu mbàkke ak sëriñ sohe bu mbàkke at mu jot daanañ ko amal lii ak ngan ci luga sëriñ abdul aziz baara xaadim rasul gi bàyyi woon xel la sëriñ abdul aziz baara mbàkke mi ngi wuutu nag magam ja sëriñ mohammed alxafis mbàkke bisub alxemis ñetti fan ci mois de juillet ci atum 1952 bisub alxemis ñetti fan ci mois de juillet ci atum 1952 mu xam ne kat léegi yan ba nekkoon ca kaw bopp magam ja di sëriñ mohammed alxafis mbàkke léegi moom moo ko yanu te kat lu magam ja doon daj ci njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke gi léegi moom la war kat léegi kenn ñi muy tuta wax dara ci njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke te jaaroo ci moom ba noppi kon léegi kat liggéey rek moom moo sës te itam ay rakkam am na ci ñoo xam ne nii seenu njàng pareegul ay rakkam am na ci ñoo xam ne nii sampaguñ lii di kër lépp itam moom la war te cheikh yi toppoon mu mamadou lamine baara mbàkke itam ñi ci bari làqoo guñ ñoom itam même bu ñu làqoo seenu njaboot itam moom mii la ñuy xoole cheikh mamadou lamine baara mbàkke yan bi nag day daal këpp ci kawam mbàkke noo nee yan ba këppoo ci kawam lépp loo xam ne nii waroon na ko ci njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke def na ko magam ja cheikh mamadou alxafis mbàkke bàyyeel na ko ndono rakki boppam yaa ngi fi bis biñ doon taxawu kii di cheikh mamadou lamine baara mi ngi fi muy benn fanub tabaski ci bis bi nga xam ne ni ci la cheikh mamadou lamine baara mbàkke génnee àdduna màggaluk cheikh mamadou lamine baara mbàkke ci benn fanu tabaski la ko sëriñ mohammed alxafis mbàkke daa màggal te moom mii moo wuutu sëriñ mohammed alxafis mbàkke li wér te mooy ndono li moom dana ko wéyal mu tàmbulee nag wéyal lii di màggal gi màggal na ko ci atum 1952 ba atum 1990 bi mu fi bàyyi ko wala ci atum 1989 ci atum 1989 la mujjee màggal màggalu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke 90 ca korite ga la làqu màggal gi ci benn fanu tabaski lañ ko daa màggal ci diiru 1953 ba ci at mii di 1989 moo màggal màggalu Cheikh Mamadou Lamine Lamine Baara Mbàkke ci benn fanu waaye nag am na menn atam mum ko wuute muy at mi mu demee màkka ñu xayma woon ko ci atu 1953 booba rakkam ji sësoon rëkk ci moom te magoon ci ginnaaw moom ci njabootu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke gi ñu koy wax sëriñ Abdul Karim Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke booba ginnaaw sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke moo magoon ci njabootu Cheikh Mamadou Lamine Baara gi moom la bàyyee loon at moomu ne ko màggalal màggalug Mbàkke Kajoor gi màggalug Mbàkke Kajoor kajoor itim moo ko jële ci dëkk bii di Taysiir yóbbu ko mbàkke kajoor ñi di ko fa màggal màggal gi sëriñ Moodu Alxafis Mbàkke Taysiir la ko bàyyi woon sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke moom xam na ne mbàkke kajoor gii kat mag moom lay dooni dafa teel yóbbu lii di màggal gi ba ku ko organiser wala ci sa xilaafa mu nekk ca nga mën ko fa màggale te du am benn xat-xat jëmm jii di sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke ñu barkeelu rek tuuti ci ay kàddoom yoo xam ne ni mi ngi ko yëkkati ci màggaluk Tuuba wax rek màggal gi nga xam ne mooy màggalu daaru xuddoos ni ko cheikh mamadul moustapha mbàkke sose mu ne am na bés ci tundoo di nit ñëwoon fa doon laaj cheikh mamadul moustapha mbàkke yow yaa ne képp koo xam ne ni fanaan nga ci màggalu daaru xuddoos suñ borom faral na la say bàkkaar mu ne waaw moom moo ko wax waaye ni ñu ngi ko sukkandiku ci lu bari ci mbindum ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax seexul xaddiim nee na képp koo xam ne nii na ngay dara jaale sëb sëriñ noo la la suñ borom di fayee te màggal gi nag képp koo xam ne ni yaa ngi fiy teew nag aw yiw aku barke loolee danga ca mën a jot waaye nag ku fa ñëwee neneen nag moom daal munta garanté loolu muy wax ne nag ne màggal yooyee ko Cheikh nu Moustapha sosé màggal yi nag day daal di wéy ca noonee muy doxe ci mbooleem màggal yi lii di taalibe yi itam ngi leen di ñaax ñu gën góor góorgóorlu ngir fonk seenub sëriñ ci wax ji boole kook nag rakki boppam yi nga xam ne nii kat ñoom ñoo sës rëkk ci moom muy Cheikh dul Bachir ak yeneen rakkam yi nga xam ne nii fekke nañ keroog jotaay bi muy wax ak lenn ci ay doomi rakam ñi des nag ci ay rakam wax journaliste bi mu séqaloon di Moustapha Mbacke Guèye di ko wax ne mën naa am nag balaa jotaay bee jeex ñoo ñu ñëw bu ñëw itam ñu xam ne yite moo leen téye waaye bëggoon nañoo teew ñu teewlu sëriñ Abdul Aziz mbakke Baara ngir barkeelu ci ay kàddoom. mu fekk bu ko jox mu di âgé mu di ko laaj moo ko dama wax ne guddeel boobu ku fi nekk dëkk bi buub ci dara wala tuut yàlla dina buub ci mu mu mu mu def dénk woon bi bu yaatu bi ndax boo xam ne ko jëlee ci wàllu seen tubaab yi ci gën a bëri ndax ñun ku nekk ñu màggale ab sëriñam ñooñu ko yàlla màggale li mu dara yàlla ab sëriñam ñooñu ko yàlla dara jaalam lépp loo xam ne lii ab tool yi bëgg na ci dara ja wala bëgg ku ci njëriñ àdduna laaxira na ko def sëriñam du ko defee rek yàlla dana ko defal loola. gannaaw loolu moom bis moom li nga xam ne moo ko moom bari dañ koo xam ndax moo gis ñu ne sëñ Tuubaa bàyyi ko woon ci géej gi ba mu yàgg door a santaane màggal googu mu weesu di ko wax tabaskiyaat bi mu ko defee mooy itam mooy itam bi nga xam ne yàlla bàyyi na ko fi mu toog bu yàgg mu mu mu toog bu koy màggal nee na màggal gi itam nee mu yaakaar ne bis bi nga xam ne ci la ci la tàmbali woon ab liggéeyam mu santaane ko mu nañ koy màggal ku am gàtt say ko ci ku ci nekk li ngay am nga nga ko ci def ngir ngir ngir màggale ko bis bi ku ci nekk euh, loo ci mën ko def ko ci ne gannaaw na santaane wala bis bi nga xam ne euh, fiir nag borom nga jëf ji mu jëfoon mooy nag kon jëf jooju war war war na képp koo xam ne di taalib nga wala nga def soppi wala nga ku bëgg lislaam soo sañoon fekk bis ba ba barkeelu ci ngan googu ñu ko ganale noonu itam waxtu boo xam ngir jóg na ngir moom te te joxe sa wóog dara ngan googu lépp luñ ci lépp luñ ko ci defal dana ci ànd ci ngan googu ci àdduna ak àlaaxira gannaaw loolu nag ñi nga xam ne ñooy suñuy rek nag nekk ni sëñ Bas sëñ Abdou Khadim sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Cheikh Thioro ak sëñ Xaddi moom sëñ Abdou Bara ak Cheikh Bara moom sëñ Abdou Karim ki nga xam ne moo toppoon ci man ak Mamadou Bara sama doom mosu des na dañu am ay ay gàllankoor ba ak segum fu mu ne ñu wala wala doomu waaye ñun daal ñu fi teew kon nag maa ngi dénk maa ngi leen dénk ñoom ak taalibe yi ñu la ci maggal gi ci bis bi ak bu bu feeg bàyyi ko ñu bañ ko yemale ak dara te xam ne seen bis bi muy tàggatoo mi ngi wax taalibe yi ñu góor góorlu ci bisu màggal gi bañ koo yemaleeg dara di ñaan nag suñu borom mu nangul ñu suñu taalibe te sàmmal ñu ko ma ngay wax itam ne fii ak mi ngi dund moom sëriñ Abdul Aziz Baara màggal gi du ko yemaleeg dara mi ngi wax itam mbokki taalibe yi itam wala taalibe yi bootu ci ginnaawam ñu bañ a yemale bis bi ak dara kon ay leeram te taas ñu ci barkeem dem na nag lii di màkkatal mukarrama ci atum ca yoon woowa nag magam ja sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma la àndaloon ca aj ga lii di umra demaat na ko ci atum 1976 ngir rek nemmeeku ji ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ci loolu la sax taxawu ay rakkam taalibey waajuram njabootug sëriñ tubaa seexul xaddiim gi ak nag lii di yoon wi mu bokk di yoonu murit ba ci atum 90 mu génn lii di àdduna laata muy génn àdduna am na nag feebar bu metti bu ko tëraloon moom sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke mi ci biir feebar boobu itam dafa tombe kii di cheikh Abdul Xaadir Mbàkke génnoon lii di àdduna moom la 17 mai la génn lii di àdduna te sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mi nekkoon xalifa général des Mourides ci le 13 mais la génn lii di àdduna at ñépp nag 1990 la waaye diggante le 13 ak le 17 dajale na fi mboolem njabootu cheikh Mamadou dem jébbal leen sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke di xamal kii di sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke ne ko sëriñ seex sidil muxtaar mbàkke mii moo topp ci man bu ma fi bàyyi ko moom la nakate booba day tàggoo ci ziyaar boobu ñu amaloon ci sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke képp ku fekke jataay ba man ngaa dëggal lii ma wax boole koog doomi boppam yi korite si woon ñenn ñi mu woolu ju leen fañ jàngi woon heure buñ bëggee ñibbi mu ne leen toog leen dafa am lu may def ci yéen te xaarloo te pareegul nakate moom day génn àdduna te bëggul njaboot gi ñibbi ñu leen ni jëliwaat bari nañu dem ci doomi di ko wax ni sëñ bi dañoo bëgg delluwaat ca tool ya mu naan leen xaar leen pareeguma ci yéen li itam am na ñenn ci njaboot gi ñu ma ko mën a dëggalal ne li ma wax lu wér la ndax ñoom demoon nañ ci sëriñ bi di ko wax ne dañoo bëgg a delluwaat ca tool ya mu wax leen loolu toog leen xaar ma dafa am lu may def te noppeegul bokk na itam ci ay kàddoom yi mu mujjee wax toog na bis ci jataay mu ne bis bu gisee Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke du rus ndax lañ ko bàyyee ma Baara Mbàkke mi ngi génn àdduna bisub alxemis ñaar fukki fan ak benn ci weer wi di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan ak benn ci weer wi di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi ci Tuuba guy mbind dëppoo woon nag muy jeudi 17 mai 1990 jeudi 17 mai 1990 ñu jébbal ko boroomam ci wetu waajuroomam wa Cheikh du Lamine Baara Mbàkke ci armeer yu mag gi ci Touba bëccëgug alxamis googu mu génn lii di àdduna ca guddi ga lañ ko waajal cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rusool moo ko jullee moo ko taxawu ñu denc ko ci ginnaaw waajuram ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ abdul aziz baara mbàkke sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara moo ko wuutu bisub alxamis fukki fan ak juróom ñaar ci mois de mai ci atum 1990 ba ci bis bii di bisub alxamis ñaar fukki fan ak juróom ñett ci mois de mai ci atum 28 ñaareelu xalifa sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke mooy ka mu tuddee magam ja di sëriñ Moodu Baara Mbàkke moo toog xalifa alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai ci atum 1998 ba ci at mii di atum 1999 kon ay weer rek la toog lii di xalifa ñetteelu xalifa sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke mooy ku ñuy wax sëriñ Abdul Karim Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke moo toog 1999 ba nëgëni koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral aw cëram te yàggal ko ci njabootuk sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke am na ko mën na ko yàlla na ko def te yàggal fi nag lii di ay rakkam ak mbooleem taalibéy sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke nag ci toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke sëriñ Cheikh Mati Lay Mbàkke mooy ka ko fa am na nag lii di bis buñ koy fàttaliku moom sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke muy li ñu tudde lii di ak màggal njaboot gi di sëriñ Mustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Aziz Baara ginnaaw bu sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke génnee lii di àdduna ci bis boobu di bisum ñaar fukki fan ak benn ci weeru korite ba mu delsi ca déwén sa wala laata muy delsi ca déwén sa sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara mi toogoon toogaayu sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke demoon na seeti nag sëriñ Tuubaa Seex Saliwu Mbàkke ngir di ko laaj ndigal ci bisub ngir ñu fàttaliku sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke di wax ne sa xarit ba moom da bugg a wutal lii di ab bis saalihu mbàkke di leen wax ne ñaar fukki fan ak benn ci weeru korite wi mu génn àdduna de su ma sañoon ngeen tuxal bis bi yóbbu ko ba ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wi di weeru korite di bis bi nga xam ne moom mooy ay bisi sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke kon sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke njabootam gi ñi ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak ci weer wi di weeru korite di ko ci màggalal sabab bi kat mooy sëriñ Tuuba Seex Saalihu Mbàkke bisu làqu yi gënu lu ko woon moo tax nag njaboot gi jàpp ay bisi sëriñ Abdul Aziz baara mbàkke yi di ko ci fàttaliku ci tuubaa guy mbind ci buntu këram kon at mu jot ci ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru korite la ñuy fàttaliku ñaareelu xalifa cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba di sëriñ abdul aziz baara mbàkke magu soxna mbeen mbàkke baara ba doomu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ja rakku sëriñ mohamadou alxafis mbàkke ja yàlla nañu ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi waa waajuróom wa cheikh mamadou lamine baara ba jafe réew mi tam yàlla na ko suñ boroom saafara ci dara darajey guy